si sama woote muy Seydina Ibrahima alayhi salaam naan ñu Seydina Ibrahima mos a nekk leen lu dul ab jullit buy wéyee ndigal loolu sax moo tax mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegal sa tànk fa ko Seydina Ibrahima tegoon alayhi salaam maa kaana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana hanifan musliman wa maa kaana minal mushrikin إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين di ca wax ba ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam thumma awhaynaa an ittabi' millata Ibrahima hanifan wa maa kaana mina al-mushrikiin bu si suñu mag bi mi ngi waxal ci këyit woowu waroon tànn moom it muy fa ndigal jëm fa ndigal jëm nag mooy fan mu tànnal moo tax mu ne fii ak yéen ngi sax ci liñ leen tànnal ngeen daje ci yoon mu ak lu leen di daaxal yàlla na yàlla dégg ko te ndigal la nag nan dale woon ñu bari xam nañ ko te gis nañ ci ci àdduna ji ku ne xam ne jamono yi ñu toll ñi yàlla dimbali jox leen ak man ñu ngay ak mag jóge ci adduna bi fu nekk yàlla yàlla yàlla na ko seen aaj nga xam ne yu nit ñu noonu foo dem ci adduna bi ñu di ñuy wax su tey loolu yi li ciy jànge mooy ak bennoo ku dem jëm demal sa bopp demaale say moroom ñi tooge toogaale fii ña dem yàlla na ko yàlla na ko yàggal ci loolu yi sëñ bu mag bi wax nañu ne bu kenn te fekk amu ca ndigal la tafaalu shay'an bi gayri idni fal ithmu shartun fi qalbi shaaki ci bis bi nga xam ne ci ndigal la tegu woon sëriñ bi ñu ngi digal ñun ñëpp ñu yeesalaat suñu tuub tuub bu sell jëmale ko suñu borom li ñu xam ak li ñu xam ndax léeg-léeg tuub nag am na ñu koy defee mooy ñiy jàngale jàngale nag bu nu nekk waaye ba ca gën daal mooy kuy dox ba yàgg jog aw xaw ko nam ko war a dëgg dëgg fu muy tegaat tànkam day jàpp ne foofa fépp ay xaw moo tax suñu borom lëkkale ko ak li nga xam ne moo jaaxal ñun ñëpp fan yii ñu toll tembe muy ndoxum taw suñu borom mi ngi doon wax ak Seydina Nuux di ñu nekk li ci moom naan woote na woote ñu te tiit euh, bañ teye tiit nag nanguñu ko déglu yàlla dafay yónnee bekkoor waaye bekkoor ba lan ko saafara mooy istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaraa yursili samaa'a alaykum midraaraa wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaaraa waaye Seydina Jibriil alayhi salaam ne waxoon na akum tam yaa qawm istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi yursili alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum su ko defee nag kon sëriñ bi nee na ñu yeesalaat tuub suñu diggante suñu borom te balonte xaq suñuy diggante ak suñuy borom jàmm te kenn ku ci nekk fas yéene luy dàngataay moom mu jëge ci moom yàlla na mu yàlla defal mu ngi ñaan suñu borom ñu wax ne afala yatubuuna ilallahi wa yastaghfirunahu yàlla yónneelu ndox mu ndaw mu jàmm yónnee ko ñi nga xam ne jël nañ seen yaakaar euh, wàq suuf ba mu xóot ñu def ko ca ko yàlla yàlla leen ci yàlla fekk ñi nga xam ne dañuy liggéey leneen ci yeneen yëf tam dagal ñu ngi ñaan suñu borom it gannaaw bu diggee ñu tuub baral di xaat yàlla sëmbërtal yéen ma leen gisee ñu ngi ko yaay te def ci réew mi jàmm ñu ba wàllu ko sax réew yi nga xam ne ñu ngi leen ak ñoom te defal ko suñuy kilifa yàggalee ci suñu kanam may leen ak wér te saxal ci seeni ndigal ba faw hmm. di ñaan ku génn mu joxante moroomam loxo ku mën a woo mu woo la te ñu fexe ba moytu dere nit ñi ndax bokk yowal xiyaama li yàlla séq ak jaamam ñu yombal li ñu diggante ak ñoom ndax jéggal leen ko du ko wàññi daal topp leen ko du ko jëriñ daal waaye la koy yàggal mooy suñu diggante ñun jaamam yàlla na jéggal moom te dox suñu diggante suñuy borom jaam ba luy toppante ba ñu dox suñuy diggante ba yàggal ci suñu ëllëg di ñaane ñi nga xam ne ñëpp dañuy jot li ay xibaar ak fu nekk lu ñuy jot lu nekk ñu fexe ba segg ko ba nga xam ne jàmm dina dayal léegi ci réew mi juróom ko wax yow te kenn ku nekk bu ko wóoree ne suñu ci biir néeg euh, kenn nga muy gis mu jël téléphone am wala waxukaayam wax lu ko neex ku ko neexee na xam ne yàlla yàlla na ko ñaareel te ëllëg dana ko ne laaj ci digg nit ñi ñëpp gis ko xam ko yow na ko te it ginnaaw lu fi waay wax ku nekk ne mën na caa jot nañu xam ne yàlla leen dàq denc ay wax moo leen dàq denc ci yéene nañu rafetal tam yéene te yéene te jàmm te kenn ku nekk di wax ci moroomam jàmm di ko yéene jàmm te di ko dox fu mu ko dégg. wutali ko fu mu dégg la ne mu fas fa yeneen yi yóbbu jàmm kàddu yooyu sëñ bi waxoon ne dañu ko jot si yàlla yàlla defal nañ ko topp te yàlla bu julli gi nga suñu julli te nawet boobu it lu ndox mi bàyyi bàyyi lu suuf si tooyoo yàlla ko doon baaxul kenn si ñoom ak ñi nga xam ñëpp ak ñi nga xam ñëpp euh, kullu aam wa antum bi xayr wasalaamaaleykum wa rahmatullah